kafal ke timit ne ala kulli hal gudi ak becc ak ñuy suñu suñu suñu ñaari miracle buy tekkale dee ak dekk rek buy tekkale suñu kartan ak suñu wetaay ngeen war caa mën xalamé lola waye ngeen dem ba wu len ci lola legi na ma ngi cee kullu insanin kullu insan ibnu abbas mu ne nit ku nekk rek xamna lu ko yalla bolé luy aris luñu ar lu koy malaaka yu koy wattu ak malaaka yokkal xam ne ñooy enregistré jëfam ja bu baaxee bu bonee duñ teqalikoog moom mukk su demee ba dee nag ñu jël mbiri ma enregistré ko ko ca doq ga su boobaa nag boo liggéeyee bu dekkee téere booba lañuy leen lemarti ñu ne ko iqra kitaabaka kafaa bi si nafsika al-yawma alayka hasiba moo tax tamit loolu sax yàlla mi ngi wane loolu sax taxe guñu àllaaxira tey nit ñaa ngi dee ñu leen di autopsie di xam lu ko rey lan la buñ xoolee ca bëri dañ ci mën a gis lu baree bëri ba xam ki ko rey ak jaaree ca loolu lépp sa baaraam yi nga teg ko muy sa apprenti yi ñi xam yaay kan mu mën laa identifier kañ nga juddu ñaati yoon nga ñëw ci réew mi loolu lépp kon dugg na ci wakkulul insaan alsamnaahu taayir woo wakkula insaanin bépp nit defal nañ ko taqale nañ ko alsamnaahu waral nañ ko taayiroo jëfam jë taayiroo maanaam jëfëm joo xam ne xenu na ko fi unuqi ca doqam nga su ko defee nag du teqalikoog moom mukk wan xuruj danañu génne loo ñu yowmal qiyaama kër bi fi kitaaban luñ bind yal dina dana dajeeg moom mansuuran muy luñ firi ca kanamam suñ ko firi ñu ne ko iqra jàngal sa téere bi kafa doyna bi nafsi nga sa bakkan al yawma tey alayka waral la xasiban ci aji regle la ne képp ku gindeeku fa inna maa yahtadi daal gindeekoom nga li nafsihi ñeel na boppam ndax mu moom payoor ga wa dalla képp ku sànku fa inna maa yadul daal naka sànkuteem nga xale xal dal na ca bakkanam ba wala tasiru du xenu benn bakkan du xenu wala tasiru du benn bakkan bu bàkkaar du xenu wisra oxra bàkkaara bakkanam moromam ma kenn ku ne yaay gàddu sa bàkkaara bopp loo sabab ñu fekk la ca nag da nga ca am bàkkaar ñu lay fekk ñu am ca bàkkaar wa maa kunna nekkuñu muazibina di way mbugal kenn wala wenn xeet wala kenn nit xataa nabaasa ba te ñu yónnee rasulan ndaw mbugal du jiitu ndigal dañuy digal nga wuutee ñu door a mbugal wa isa aradna bu ñu nammee an nuhlika ñaxalak xaryata ñooñ dëkk amar naa dañu ñu digal mutrafiha way xewuy dëkk ba mooy borom xalal ya fa fasaqoo ñi génn ak topp fiyaa ca dëkk ba di jaay ak rëy ak saatagaay fa xaqee alayha ca dëkk ba alqawlu baatam mbugal te mooy ñooñ dëkk ba fa dammar naa ñi bombardé ne tadmiran ak bombardé wa kam ahlak naa bëri na bu ñu xalagee min alquruni ci ay maas min baadin noohin gannaaw nit yi noox ña xalag nañ nit yi yaag nit yi ña nit yi yaag yu Ibrahima yaag ba ca yu Iisaa ya wa doy na bi rabbika sa borom bi sumu bi ibaadihi ci bàkkaari jaamam ya xabiran di aji xam leen yàlla ki ko xam de basiran di maanaam xabiran di aji dañ kumpa basiran di aji xam ko man kaana ku nekk ñu di namm ca jëfam ja jëla ta àdduna rek nga ca bëgg xajjal naa ñu gaawee la woo ñel ko fiyaa ci àdduna maana saaw la ñu soob li man nurul ñel képp koo xam namm nañ ak gaaweem su ma jaal naa topp ñu def la woo ko ca àllaaxira jahannama safara mu de boo xamee dana njaar ko man mbir muy nekk di ko ñu yedd di ko ñu ŋàññi madhuuran nekk kuñ dàq wala si yërmande yàlla waaye wa man araada képp ku namm ci jëfam ja aaxirataha laaxira wa saa mu jëf laa ñeel ko saa yaa jëf ju baax jëf joo xam ne dana xelloog moom fekk woo moom ba mu koy jëf mënuñu aji gëm la yàlla fekk woo moom mënuñu aji wétal la yàlla fa ulaay ko yooyu gars yi kaana nekk na saa yowum seen jëf maskuran di luñ sant de ku lan ku mu ñaari kuréel yii mu mu danañu tëbb xaawulaay yii gars yi ñoo xam ne àdduna rek lañ bëgg waxaawulaay ak yi gaay yi bëgg àllaaxira min xataay rabbika saqee wali yi sa borom dañ leen ko jox ci àdduna ba mat sëkk ko bon ak ko baax ñëpp laay jox wa maa kaan nekkul xataaw rabbika saqee wali borom maxsuuran di luñ tere kenn ci àdduna unsur xoolal kayfa faddal naa naka lañ xëppalalee baaduhum lenn ki ñoom xalaa baax di ci lenn fii maanaam ci wërsëg wala al axiratu xalaaxira nag xëppalanteeg akbaru moo gën a màgg maanaam darajaat ci daraja wa akbaru moo gën a màgg tamit taf di leen ci xëppalante de li xëppalante xamee ci àdduna ci wërsëg ci fan ci taar ci njool ci gàtt xëppalanteeg àllaaxira ga ci ay darajaat ci aljana foofa la gën a xëppee na ko rek ni àllaaxira xëppee àdduna gënee na ko ni àllaaxira gënee àdduna su ko defee kon nag noonu yàlla nga koy wax yëpp yàlla nga ko ciy jàngale kon kon gis nga ayaat yooyu. ma dëxëñal la suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ciy xamal ne kenn ku ci nekk sa jëf ji enregistré nañ ko ci benn papier jël ko tamit laxasal la ko ci sa doq suuf mënta lekk kayit googa soo dekkee ñi làqarti ko ne la toogal nga jàng taxawal nga jàng yaay la sa bopp iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba nga toog ne loxo rek xam naa ci notu soixante dix pour cent ci laalu laalu wut bët rek am naa ci notu quatre vingt pour cent ci xollu xollu wut nopp rek am naa ci maanaam notu soixante pour cent xawra am naa ci notu quarante pour cent ca ngay xool si yàgg nga yuuxu ne maali haazal kitaab laa yugaadiru saxiratan wala kabirata illa ahsaaha nga yooxu jooy te kenn dóorul la neex naa misaal bu ñuy examen yi képp ku admis kenn du la woo téléphone kenn du la bindab leetar dañuy affiché rek nga xëy xool ko boo xoolee affichement yi rek jooy te kenn dóorul la wala rek nga kontaan ree ndeysaanam te kenn waxu la dara xalaa qiraa mi noonu la mel nit dana liir liir téeréem rek ku kontaan nit dana liir këram yi tamit tamit jooy boo liiree say notes ya ñëw woon ko say xarit say mbokk su ko defee nag ne leen xool leen ma am nag kontaan bëgg lool noonu tamit lay xamee ëllëg àllaaxira bu sa notes ya bonee nga jooy doo ko bëgg a wan kenn kooku mooy wa kullu insaanin wa kulla insaanin alzamnaahu taa'irahu fi unuqi wa nuxriju lahu yowma alqiyaamati kitaaban yalqaahu mansuura ñu ne la iqra kitaabaka rek mu jeex ku sànku sa sànku tega yaa koy daataarloo ku jub sa njub ga tamit yaa koy daataar la wax la kenn du la ci xëppale yàlla ne du ma mbugal aw xeet lu dul damaa yónni ki ñoom yonantu moo tax ñuy wax ne awlu fitra ñu dox ci diggante yonantu yonantu yoon naajuuna mucc nañ mbugal du jiitu ndigal dañ lay digal kay nga wuuteeg ndigal su ko defee mbugal door a ñëw man yàlla yàgg naa mbugal xeet yi nga xam ne yàgg naa la digal ca gannaaw noox ba ci yonantu yàlla muhammad aw xeetam moo tax mu ne waka maanaam wa kam ahlakna min alquruni min baadi nuuhin wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi xabiran basira yàlla xam na lépp dara dañu dara humput ko su ko defee kon loolu lay wax ku bëgg a àdduna da ca doyal danaa la ko jox ba doy sëkk waaye doo xam benn cër àllaaxira ku bëgg a àllaaxira dinaa la ko jox ba mu mat sëkk waaye doo xam benn cër ci àdduna léegi nag commencé na tudd ñaar fukki juróom ñaar fukk ak juróom. yi muy wax ci ni ci ay téré yo xamné suñ ko bayé suñ njariñ la suñ ko topé suñ tané la mom lay wax ci ni la taj'al bul def ma la ya andak yalla ilahan yalla akhara jenen mom kenn doyna soko defé ngir ak heppal nak fa taqooda sabab soosa da nga mazmu man di ko ñu yedd mazulan di ko ñu gatchal do xam kenn ku la wa qadaa xatte na rabbuka borom sa ne an naka lay mbir tey mbir laa taabudu bu leen jaamu illaa iyaahu lu dul moom dong wa na ngeen rafetal bil waalidayni ci ñaari waajur yi ixsaanan ak rafetal imma yablugan na ndem jot nañ indaka fa yow alkibara ak mage ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar moo mage ta mag dafa naqaree yore aw kilaahuma wala ku mu ci ñoom ñaar sax ñoo mage te ñaari mag dafa naqaree yore lu yore ba métti métti falaa taqul bul wax lawu maa ñela ñoom ñaar uffin cam bu leen mukk moolu bu leen maanaam mastawu wala tanarhuma bu leen gëdd bul meccati ku mukk waqul na nga wax lawuma ñaal leen xawlan wax kariman ju tedd wax fid na nga wàccee lawuma ngir ñoom ñaar janaaxa zulli mbaggam toroxtaane te mooy nga wàccee sa mbagg ci seen kanam loolu naa la min rahmati ngir yërëm leen waqul na nga wax rabbi yoo sama borom irhamhumaa yàlla nga leen yërëm kama rabbayaani comme niñ ma yërëmee woon waxtu wañ may yar saqiran mbir may nekk di ndaw rabbukum borom seen alamu aji xam la bi maa fi nufuusikum di nekk seen bakkan li ngeen ci nëbbu yëpp yàlla xam na ko in takunu bu ngeen nekkee saalihiina di ñuy topp yàlla yàlla xam na fa innahu naka moom yàlla kaana naka jekk xafuuran jéggalaa kon la lil awaabina ñeel way topp ñi waati na nga jox zal qurba xaq woo xaqam ci mbaaxee ci jokk wal miskine na ngeen jox miskini seen xaq wam na sabili doomi yoon di musaafir jox ko xaqam wala tubasir bul yàq ci dundale tabziran ak yàq mu mubasir naka yàqkat yi kaanoo nekk nañ ixwaana shayatin di mbokk saytaane wa kaana nekk na seytaanu saytaane kafuuran di weddi haakoon li rabbi boromam wa imma tuuridanna gis nga ko kon yàlla fonk waajur ba bopam la ñëkke ci ñi war ko wétal jaamu ko ñaareelee wajur doom adama yalla fa ko togg ci ñaari cin cin bu njëkk ba yalla ko ñulagal bopam sóoral ko bopam togal ko bopam mu ñor mu yakal ko boppam jaarelul ko ci benn matière bam nekk di moom loola mooy roox ki def lii moo xeeyoo ñu jaamu ko ñaareelu cin ba nag da ko jaaral ci ndey ak bàyyi ma nii mu dereet suux wayroo ngay dund génn fa nga jaar nekk li nga ne fañ jaar ak yow ba nga nekk li nga ne kooku mooy ñaareelu cin yi mooy sabab ba kon moom moo xëyoo ñi rafetal jëmee ca ñoom waajur yooya nag ca gën a xel ñi rafetal jëmee ca moom mooy yaay nit ñëw na ci yonantu bi ne ko ana ci nit ñi moo gën a yell ma rafetal jëmee ca moom yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sa yaay mu ne ko gannaaw si gi mu ne ko sa yaay ba muy ñett yoon mu door koo wax sa baay hadis la bob abi hurayra moko wax mu ne jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallam fa qala ya rasulullah man an nnaasi bi husni suhbati qala ummuka suma ummaka door ko suma abaka suma adnaka fa adnaaka lii yonentu be ko wax kon ki gëna a la ci rafetal jëme ci mom moy yaay gënaawam baay gannaawam ku la gën a jege rek su ko defee nag ndax yaay mii nag moo gën a sonn te moom ak baay ñoo bokk bokku liggéey bi su baaxee baay moomale ko boppam di tiitaru kii mooy sama taaw mooy sama ñaareeli doom place place sàngam la ne bu liggéey ba yàqoo bu moomale ko yaay ne ko xamoon naa ne lii nga fi mën a xam kon liggéey boo xam ne tabaarakallaahu bu bonee rek ñu moomale ko yaay ñay saaga sax bu ñuy saaga yaay lañuy gën a saaga saaga yaay moo gën a ñaaw moo tax ku bon feeg saagaagul la yaay rek xolam seddagut kon yaay sonu na moo gën a yelloo ñu rafetal jëmee ci moom moo ëmb moo nàmpal su ko defee kon toll mama boo xam ne dootul lu ko neex lay sol nekkatul lu ko neex lay tëddee nekkatul lu ko neex lay lekk su ko defee tamit yàq ay nelawam ngir yow nga yàq sa bopp mu lay toppatoo kon kooka bu la kenn waxutoon dara nga war a xam ne kii mënuñ gën rafetal jëmee ca moom rawatina yonent bi jàngal ko. su ko defee nag bu doom tekkee bàyyi tiitaru ah sëñ di ma ne la bàyyi ka mu ne kii mooy sama taaw ma ne ko nga ma ko yéex a wax xaw ma woon ne moom la do waajur ci la yonentou bi ne torox bakkan torox na raghima anfu raghima anfu qila ya rasulullahi man mune man adraka walidayhi inda al-kibri aw ahaduhuma suma lam yadkhul al-janna mune torox na torox na ñu ko ku torox mune ki dund ak ndayam ak bayam ba mu dulu ci ak kenn fekk nga nek mak te len luñ koy lu koy hal janna yonentu waxaat ne lan yajziya waladun waalidahu illaa an yajidahu mamlukan fa yastarihi fa yuatiquhu mu ne maanaam doom mënta fay bàyyi lu dul mu fekk ko muy ab jaam mu jënd ko goreel ko yonentu toog na góor ñëw di ko tàggu ci jihaad foo jëm mu ne ko maa bëgg a jihaad ànd ak yow mu ne ko ahayyun waalidaaka qaala naam qaala fa fiihima fa jaahid yonentu bi ne ko demal nga jihaad ci ñoom ñaar waajur ci lay wax ne ridal rabbi fii ridal walidayni wa suxtu rabbi fii suxtil ni sànjam yàlla lëkkalikoo naag sànjam waajur bu waajur meree rek yàlla mer ngërmandeeg yàlla xam naa ngërmandeeg waajur bu waajur gërëmee rek yàlla gërëm kon képp ku fi jël sab sëriñ di ko teg ci sa kaw waajur da nga torox doo jariñ ca moom boo dee dem safara ndax sa sëriñ bile ba mu lay bëgg a ngay ànd ak moom ku mën a doon fa fekk nga man dara rek. ba nga mën gudd dara kenn rek la bëggoon mooy sa nday ak sa baay kon bu ko watee kenn ko fi mën a yi lagar lagar yi soo ñu yobul ci sa nday ak sa baay su sa xel mi ko ñu yobul sa nday ak sa baay soo dee ñi jox la sa nday ak sa baay kon nak nday ak baay moomu nga xam ne ba nga mën gudd dong ñoo la yore bo boo tut ci ñoom lañ lay delloo soo yeboo ya nga tel ci delloo sa bop ndax buñ la ci delloo de rus dañ ci bàyyi xel jamono ji yaquna nak top ay rek di len tuddé sëriñ ñu lay ñu lay dëddalee ak sa waajur yi nga leen di topp te doo ci jëlee dara lu dul toroxtaane rek sa maas yi raw la boo lëggee nga dee dem safara yàlla yàlla musal ñu ci sëriñ bu baax tamit du ko nangu sëriñ boo gis muy not doomi jàmbur yi ñu koy topp bàyyi seen ndey ak seen bàyyi dugatul sëriñ mais këriñ la këriñ nag du dara mooy loo xam ne boo ko laalee ñuul bu la laalee ñuul bu ngeen laalentee nga ñuul këriñ du dara mooy koo xam ne lakk na ba pare moom day hut kum lakk rek su ko defee kon nag nañ bàyyi xel ci loolu wa zal qurba haqqahu nañ jox jege ñaali seen haqq su ko defé la ñuy jox seen haqq moy jokulen leen ñett ya leen jokk benn saxu ci kawar làmmeñ moy waxante lu rafet tënk moy jëflante tank moy demalante su ko defé miskin yi nañ len dimbalé ta yalla tax ku tukki taga témbi mu nekk musafir nañ ko fat nañ baye yaqalal yaqalal dara wut ci tuk cigarette ndax yaqalal man ta passé tal ko kep ku yak mbokam seytaane nga nga yek nga ñak yek l'islam dafa bëgg nit koy digg doomu waaye sag dundale foo toll ngay yàq kooku yalla bëggut ko wa ima tu'ridanna sababu nusul bi yonuntu fa dan tok sahaba yi di ko laaj buñ ko laajé luñ xamut ku melni ak bilal ak suhaib ak salim khabab léegi-léegi buñ ko laajé luñ soxla ta mom xamuko fay nopi rek ngir kersa ngëb googu mu ñàkk ngëb nag mu mel ni dafa leen xaw a dumóoyu yàlla nag ne ko buñ la laajee loo amatut waxal wax ju rafet rek sarax la wax ju ndimbal la qawlun maaruf wa maxfiratun xayrun min sadaqati yatbauha adan moo tax mu ne wa imma tu'ridan anhum ibtigaa rahmati min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan qawlan maysuran wala tajal yadaka maxlulatan sababu nusool bi benn jigéen moo yónnee ca yonantu ba ne demal ne ko mu jox ma eh, yére bu ma woddoo xawma lu ma woddoo mu ne ko demal ne ko mu bàyyi beneen jamono mu ñëw fi waaje ñëw di ab xale ne ko sama yaay mu ne nga wutal ko lu mu xoddoo mu ne ko demal beneen jamono nga ñëwun fekkut ko fi xale ba ñëwaat mu ne ko mu ne nga dimbale ko ci lu mu xoddoo yonentu bi jël mbubbam ma menn mbubba la mu jox ko ko sama rek la xamoon waxtu julli wa jot bilal noddu kenn gisu ko ndeke booba xamul bu mu war a sol pour ñëw ca jàkka ja ñu fekk ko mu toog ndeysaan ak rafle ga kenn du yonantu bi loolu mooy isaar man maanaam maye ba li nga xam soxla yaa ngi koy maye yàlla nag ne ko nag tàlli bu xëpp baaxut ku ko def da nga yedd sa bopp waaye tamit nay ba mu jéggi dayoo baaxut ku ko def dañ la yedd kon ku nay ñu yedd la ku tàlli yedd sa bopp gisoo autoroute bi ba mu tollee ni mu tàllee ni mu sonnee gisoo basan ba mu tàllee ku ñëw xalangu tàlli bu xëpp baaxut de xayrul umuri awsatuha moo tax yàlla ne ko wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika bu ko jaari ci yonent bi ñun la ci nam yonent bi matna mo gëna gën tabe ñëpp wala tabsuruha kulal basti moo sama borom tofal ci neko ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga waajur ni ko yalla fonkee de yalla ñu yalla fonku wajur ba wax ne nañ wara waxe ak nañ wara waxe ñu waxal tere ñu nuñu war nuñu war ta waxe ak mom nuñu war ta waxe ak moy moy fala taqulu ma ufin way way ku lay tere ci patu meccatiku koko téré na la nga gëdd ko mba nga door ko kon tere na la nuñu wara wax nuñu nuñu war ta def ak mom mu tek ci wala tanhuma bu len gëdd nuñu wara waxe mu ni ma qawlan kariman wax la tamit nuñu wara comporter ak ñom lo bari bari xam xam bu ko sa wajur xam lu sa ndomba tank reey reey bu ko sa wajur xam lu sa wërsëg bari bari bu ko sa wajur xam lahu ma jannaha zulli min rahma comportement baa ngoog mu jangal ñu ba jàngal ñu leen wara ñaanale ñaanalee muy waqu hamu waqu rabbirahuma kama rabbayani saghira yow yalla yalla nga yërëm sama ndey ak sama bay kom ba ma nekké ndaw mënuma dara loolu yaq sama bop nañ ma doon yërëmee buñ leen ko yalla yërëmee ngi dem aljana li la yalla wax ak wajur deug deug nañ baye xel ci wajur yi am solo kula ci xas raw to ko jotati ni ñepp ñu ngi rawé ci wajur su ko defee nag bu ko bilaal mosoon a laaj ak xabaab art xabaab ibnu art xamut mu noppi jàpp ne noppi tontu la te am na koo xam ne boo noppee rek mu doon déglu wax da ngay day gën a jaaxle moo tax yàlla ne ko wa imma turidanna ndéem da ngaa dëddu xanu walis leen ñoom boroom jege ñaale yaag lañ lay laaj ibtigaa rahmatin ngi rek sàkku ngërmande min rabbika gu bàyyi ko sa borom tarjuwaha goog da nga yaakaar ko tarjuwaha goog da nga hóolu ko ci loolu ci sàkko sa wërsëg wi di xaar pour mu ñëw mais maanaam di ibtiqaa rahmatin ji lim ci namm wërsëg mooy fekkee dañ laa laaj loo amul nga yaakaar ne leen xaar leen am na luy ñëw foqul na nga wax rek lahum ñaa leen xawlan wax may suuraan bu buñ buñ jàppandal te mooy bu nooyee nooy wax leen ko rek waaye bul noppi boo noppee dañu gën a jaaxle kon ñu la laajee lu fi neexagut te yaa ngi yaakaar ak nexam fi waxal ak ñoom wax ju nooy mu jeex waaye nag neen aaya ji mooy ba may ba may ay yëreem yum sol yàlla ne ko wala tajaxal bul def yaddaka loxo sa maxlutan muy luñ jax ilaa unuqika jëm ci sa doq naa la ci rek ñàkk a joxe koo xam ne loxoom ya dafa dagg danga nga dégg ñu ne loxoom dafa dagg wala ñu ne loxoom ya kat dafa nekk ci kaw doqam ga wala tabsut haa bul ko tàllal ci dundale kulal basti gépp ak tàllal soo ko defee fa taquda sabab soosu da nga jékki maluuman di ko ñu yedd mu dellu ca bu njëkk ba maxsuuran di ko saa yoo tàllee ba hëpp boo le yedd sa bopp soo tàlliwut ba hëpp banku ba raw mel ni jaalaan ñi yedd la inna rabbaka naka borom sa yëpp sul dana mu tàll risqa wërsëg li ma ni saaw ñel ko soob woo yeqadiru dana mu xatal wërsëg ci ko ko soob innahu naka moom sama borom kaana naka jekk xabiran ku dañ kumpa la bi ibaadihi ci jaamam yi xam na li xew lépp ba ca tegu mu ne walaa taqutuloo bu leen rey awlaadukum seen doom yi xam doom muy nga gas suul mbaa ngay def planning ak xasiyata imlaaqin ngi ragal ñàkk koo xam ne mi ngi mi ngi mi ngi ñëw waaye xeg seegut nax na ñun yàlla narsuquhum ñooy wërsëgal doom yooya ngeen di rey wa iyaakum ak yéen baay yii di leen rey inna qatlahum naka seen ak ray kaana nekk na xit an di bàkkaar kabiran bu mag a mag wala taqaraboo bu leen jege asina ak njaalo lu bon la innahu naka moom kaana nekk na fahisatan di lu ñaaw wasaa bon na sabilan si aada aada bañ na ko sharia bañ na ko wala taqatuloo bu leen rey an nafsa bakkan bi alati ba nga xam ne xarama na laahu yàlla ak rayam ah ilaa bil xaq loolu ci dëgg faray ñi war koo mbaa mu njaaloo gannaaw bam mu sangewoo ñi war koo rey wa man képp koo xam ne xutila rayef na ko maxluuman muy kuñ tooñ faqad jaal naa def nañ li waliyihi ñeexal aji ah, aji donnoom te mooy ki méngoo deret ja may nañ ko sultaanan ak xirtal ah, sultaanan kartan ca ka ko rey waaye nag buy demee bay fayu falaa yusrif bu mu jéggi dayo fil xatli ca ray ga bu mu rayee nu wuuteeg niñ ko rayalee waaye tamit bu mu ray lu hëpp kiñ ko rayal ma ca xem képp loolu la ta tañ tañ niroo inna woo naka sama borom kaana naka kaana nekk na man nawoo naka moom naka lay mbir tey mbir kaana nekk na moom waa jooju nga xam ne dañ koo rayal man suroon di kuñ dimbale innawoo naka moom mu ñu rayal kaana nekk na man suroon di kuñ dimbale boo ko defu damiru sha'nu wala boo bu leen jege maalal yatiimi halali jirim illaa bilati lu dul ci yoon woo xam ne hiya moom axsanu moo gën a rafet te mooy toppatoo ko muy yokk nga cay xam mu cay xam xataa yeb la ko ba mu jotee asuddahu dayoob kartanam te mooy mu dem ba xam kartan xam xel nga door ko koo jox wa aw foo na ngeen matal bil ahdi ci kóllëre eh, boo bëggee kóllëranteeg nit ñi inal ahda naka kóllëre kaana nekk na masulan di lu ñuy laaj xëla yowmal qiyaam wa aw foo gis ko ba tey na ngeen matal bil kayli ci natt bu ngeen natt na fees ni ngeen bëgg ñu nattalee leen dee leen koo nattee moo tax mu ne isa kiltum bu ngeen natt wasinoo na ngeen mandaxa bil bil xistaat ci baskil mustaqim bu jub kocc na balance ba baax te na daanu zalika loolu xayrul moo gën wa ahsanu moo gën rafet tawilan ci ak dellu su ko defee kon nag wala taqfu bul xeeñtu maa la nga xam ne lay sa làkk de la ñeel bii ci moom xel mun benn xam-xam ina samaa naka dégg wal basara ak gis gi wal fuaada xol bi kullu ulaayka yooyu gaay kaana nekk na masulan di duñu laaj xanu ci moom ñoom ñëpp ay responsable lañ dañ lañ leen a responsabilité dañ laaj sa xol bi lam façon bët yi lam gisoon nopp ya lam déggoon dinaa la ko gën a firil wala tamshi bul dox fi la ardi ci suuf maraxan nga nekk si ak sa di borom ak saata gaay di rëy rëylu innaka daka yow lan taxriqa mënuloo xat xar al arda suuf si mënoo koo xotti walan tabluqa mënuloo jot al jibaal doj yi tuulan ci gudd mënoo fexe di kóol sa mbagg yi ba tolloog montagne ya mënoo rippi ba kar suuf si comme loo def desal defal nànk kul zalika képp ci yooyu ñu tudd kaana nekk na sa yi lu ñaaw xen rabbi ko fa sa borom makruhan di luñ sib lu lu bon a bon la zalika loolu nag bi maa aw xaa mooy na xam wax wi na ilayka jëm sa borom eh, ilayka jëm ci yow rabbu ko borom sa min al hikmati ci waare wala tajaxal bul def ma allahi ànd ak yàlla ilahan yàlla aqara jeneen soo ko defee fa tulqaa sabab sos def na sànni la fii jahannama ki safara maluuman nga nekk kuñ yedd madhuuran nga nekk kuñ soril yërmande yàlla ji madhuuran nga nekk kuñ dàq wala si yërmande yàlla ji lii kon mooy tolloog ñaar fukk juróom yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mu ñu koy tere te buñ ko bayee rek texe suñ ko toppee rek texe hadi bi ci njëkk digal nañu ne nañu tàlli waaye bu mu tere nañu ñi banku banku ba mel ni jaalaan kenn mënta am ci yow dara mu mel ni sa ñaari loxo yuñ jël xeew ko ci sa doq gi kooku xam ne mënta joxe mënuñ koo jox foofa la nay mën a yam mënoo joxe mënuñ laa jox koo kooka fa la nay mën a yam yàlla ñu koy tere nay taxut a xam tabe terewut a xam ndax yàlla jaam bu ne bool na koog ñaari malaaka mii ndeyjoor mii càmmooy malaaka mi di wax ne yow yàlla allahuma aati munfiqan xalafan kii di wax ne allahuma aati mumsikan talafan yow yàlla koo xam ne lu mu xam joxe ko te yaay tax yàlla bu mu ñàkk lu muy joxe xalal jëy gën di xalaf xalaf yi bëri rek wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yaatee yawmun lay bay'un fiihi wala xilaal waaye tamit def len ci halal ji ndax fi na fiihi dañ len ci wuutal loolu la yalla wax kon aya joju loolu lañu ñu digal waaye ba hepp ku ko def bis bo ñaké yedd sa bop ku bank ba hepp timit say mbokk yedd la kon na nga nekk ku digg doomu ndax khairul umuri awsatuha aw loolu la yalla bëgg su ko defé timit mu tofal ci ne bu len ray bakkan ni ñu bon lañu woon ku ci am doom ray ko buy jigen nga ne mënuma koo dundal gatch rek lay don xëllëg ñen ñi timit demone ba nga xamne euh li ñu rey ci ay doomu jigen ken xamu ñu tollu waye gis nga ko liko liko remplacer moy planning bi rek nek fi rek di planning di njaalo ngir baña Haramna. xam doom haram na ko xamne timit jëkkëram dafa dem muy njaalo ngir baña feñ ci haram na ko xamne timit mi ngi ci ak digg dir yaa ngi ko bëgg doxal te dom dafa ma koy yàqal na def planning ndax duma am dom koko haram na ci mom planning dal ci kim dagan ñaar la moy ko xamne dafa nef xat mu jot mo am dom bu yagge du ko fekkee doomam du ko nga def lu tax dom nga ya ji su sore ndax yonantu bi domam ya magante na ñetti at ci sayyidatuna Khadija kenn ku ne ak moromam wala nga nek ko xamene ni nii sa butatu dafa faible médecin bi ne la soo ëmbatee rek sa bakkan des ca su ko defee nag mu def la loo xam ne dootoo ëmbati loola yii la ñaar la ci borom xam-xam yi setti yi ca desati yëpp ci xeeti nit ñi dafa xaraam def ko xamoo jëkkër ndëmb ke di njaalo xaraam na moo góor goo xam ne dafay sol ay kawas di ca njaalo ñoo xem kepp wala am nga jëkkër waaye dangaa ngaa a njaalo ndax moom nekkut fi ndax sa boo amee doom du feeñ doo am doom xaraam na koo xam ne tamit xam nga jëkkër mi ngi fi waaye da nga ne su ma amee doom ñi xam naa ñaar bu ñettee mbaamu mu ñeent mbaa juróom du ma leen mën a yar du ma leen mën a toppatoo ku la ko wax yàlla ne ne maa leen di wërsëgal doolu laa wërsëgal kon lu gi sa yoon jural rek te li ma la wax nga def ko maay tekkil maay yoral ko defoon dem planning ñaari doom la xamoon ne doy na jël oto dem di defi planning bañ defal leen ñoom ñaar dootuñu xamati doom ñuy dëpp accidenté ñaari xale ya dee seen dund ba yàqu na nu yooyu yep dafa haram te li lepp tubab yi ñoo ñukoy andil bu teyee tay ñu ne organiser njuréel bi di andi ay baat rek nam gëna a yalla na daana wax ne bu bayi len shaytané bu gën topé discours mi rek mu yàq moy tubab yi ya bani adama la yaftanukumu shaytan ndax discours bu rafet kat ci la ci la sanké won sen mam adama hal aduluka ala shirkil quldi wa mulki la yabla ta fek dara taxawut ci kon yep tubab yi ñoo ñukoy defal ñoo ñukoy andi rek ndax ñoom fu ay magge dong lañ so xamé lu ñuy lek ta xamuto ñukoy lek perte nga ñun nak alhamdulilah rabbi alamina bu ñu xamul lu ñu lekk tamit xam nañ ñu koy ba tax na ñu ngi lek li fi nek bay dem fofu di lek la nek fa ñoom kon àdduna bi yeb ci afrique lay mujj ndax ñoo fi déssé ay ndaw ñoko fi gëna bari le te nag kartan la innamal kasratu quwwa kon nak al quwwatu kasra lu lepp dafa jara baye xel waye nak tabaarakallaahu top seen yi dañ lay yakal kon yàlla nee na bu wërsëg nekk seen problème maa koy joxe te man ñee laa ko njëkk a war doo leen ko warlul nahnu narsuquhum door a wax wa iyaakum lii nag mooy ñàkk gooy séentu bu mu tax nga def planning am na feneen foo xam ne nag min imlaaqin la wax mooy ñàkk goo xam ne dem na ba taxaw ba pare dafa taxaw ba pare bu mu tax nga rey lépp bàyyee ko yàlla wala taqatulu awlaadakum min imlaaqin ñàkk gee taxaw ba pare xasiyata imlaaq nag ñàkk gu ñuy séentu la kii sa yoon waaqe kii mutawaqi la mu tegal ci ne bu leen njaaloo wala taqrabu zina njaaloo bon na ci aada bon na tamit maanaam ci sharia ndax njaaloo ak mooy yàlla la njaaloo dana waral ñi gëtën la boo sangee wut téeméeri xat boo sangee woo ñi ray la njaaloo dana waral askan yu jaxasoo boo ñëwee ndaw ak njaaloo ndaw si keneen ñëw ak njaaloo ndaw si bu doom yi juddoo kuñ koy moomale doom gi nag bu juddoo xamuñ kuñ koy moomale ku koy yaraxal ëllëg dafay indi ak sànkute ak yàqute ke bi dafay dagg ak ngirte dafay ràppala alam bi te loolu yàlla organisé organisé wut ko ak njaalo bu bëree ci ak suuf rek beekoor daal ci seen kaw asina wal xinaa laa yastamiaani te ñu bëri la ko loolu léegi xale bu la mujj juddu gën laa ñeme njaalo ci góor ci jigéen wala taqrabu zina innahu kaana fahishatan wa saa sabilan bu leen rayati bakkan lu dul bakkan yi ma organisé nañ leen ray ku rey ray leen ko ndax mënu leen fee jëlee rey ci lu dul ray bakkan bu ko wóoree ne bu raye ñi ray ko dana ñongel bakkanam bi dalé bakkan bam naroon a ray mu jeex ko xamé dafa njaaloo gannaaw bu mu sangee ray leen ko ku duggu ci l'islam murtar ray leen ko ku qas yunt yalla muhammad ba mu qas alquran ba mu qas yalla ray leen ko ndax ñoo ay néew yu dox lañ bu len yàqaal li jirim yi waaye nag bu wala taqrabu mala yatimi bu nit baye le jirim ni nga bëgg boo dee woon bàyyi ko sa doom nañ koy toppatoo toppatooxee ko wal yaxsha llaziina la taraku min xalfihim zurriyatan di'aafan xaafu alayhim falyattaqu lekk wa yaqulu qawlan sadiidan waaye ba nit dee bàyyi laay doomam ngay profité lekk xala ca safara ngay lekk innamaa ya'kuluuna fii butuunihim naaran wa sayaslawna sa'iiran dañ ciy bàyyi xel am am nga sañ-sañu nag liggéey ca ndax boo ko fa bàyyee asaka lekk ko loolu la yonent bi waxoon xam nga buñ see génnee ta dara yokkut bu yàggee mu jeex waaye nag mën ngaa defe moom xiraat di ca liggéey di ci jël sa xaq mu cay am àqam bu demee ba màgg ñor nga jël ay seede teewel ko ko bàyyam ba muy dee dix millions la ko bàyyeekoon maa ko toppatoo ba mën na quarante millions mu ngi nii yaa ko moom jëlal loo man demal defi nga orienté ko yoon nga muy teg ba alal ja du yàqu ndax ko xabul xalal kay am alal bu ñu la dimbaliwut xalal ja yàqu yàlla wax ak commerçant yi waaw fowul kay la su ngeen dee peese na daanu su ngeen dee natt na fees ni nga bëgg ñu nattalee la dee ko nattalee li nga bëgg ñu peesale la dee ko peesalee waaye nag xam ñaari baskil soo ba boo bay jënd xoo sa xale bi indil ma baskil booba papa ban mu ne booba yen ñaar rek a xam booba nag sooy jënd ne ko indil ma booba ban la mune la booba fekk déggoo ngeen ki ci seen i tappale loola baaxut nit sooxay bu kat li tax yàlla xalak leen ay commerçant loon ñu doon mës-mësal yàlla xalak leen waaw ful kay la ida kiltum wasinoo bil qistaas al mustaqim yàlla tamit tofal ca ne dee leen matal kóllëre waaw foo bil ahdi léegi nag nit ñi kóllëre tegatuñ ca dara firi kóllëre rek koo ànd tey muy man ànd ga neex bu ñàkkee nga wan ko gannaaw xas ko loolu moo fi nekk tey rawatina politiciens yi amuñ ci kóllëre dara waaw foo bil ahdi innal ahda kaana masulan yàlla ne bàyyi leen di luññati ko lu seen yoon nekkut bu leen waxati gis naa te gisu leen bu leen waxati dégg naa te déggu leen nekk fi ne foog naa yaakaar naa boo demee te kenn demut boo liggéey seen nopp yi seen bët yi yëpp ak li ngeen fas ki seen xol ay responsable lañ danañ leen laaj inna sabaa wal basara wal fuaada kullu ulaay kaana anu masulan yéen xale yu góor yi jaay réyantu bu leen dox ci suuf di rippi sol seen dàll yoo xam ne ku ngeen dëgg lor ko dox di bonde mënu leen a bonde ba xar suuf si mënu leen a kóol seen mbagg yooyu ba jot montagne yi def desal kon boo xeboo def nank wala tamshi fil ardi marahan innaka lan kal arda wa lan tabluga al jibala tula binyar fukijiko nag mu wax di ñaar fukki jikko ak juróom yu bon la na ngeen ko bàyyi moo tax ne kullu zalika kana sayiatan inda rabbika makruhan kon yëpp nañ ko bàyyi xel yi ñi wax nag nekkoon na ca téeréeb yonentu yàlla ba mooy aay yi di ci tegu si moo tax mu ne bi maa waxa ilayka rabbuka min al xikmati ci wala tajal ma allahi ilaan axara ba la ca tegu yëpp mi ngi woon ci téeréem yonent yàlla Muusa bi ndax loolu euh, Muusa téeréem bi yàlla wax na ko téere loo xam dafa doon waare di jàngale tawhid di am ay tere yoo xam ne tamit ma nga ca euh, euh, dégg Euh, kon ay yep mi ngi won ci ñi bëgg wax ci ni mi ngi won ci téré yonent yalla Moussa bi ndax moom ma'isatan wa tafsilan li kulli shay'in lahun mi ngi ci won moom lay wax ci ni motax sama borom tofal ci ne zalika lulule le awha ci la nga xamne wax rabbuka borom sa min al hikmati ci xam-xamu njariñ di xam-xam bo xamne buy jariñ la su ko defee nag ah, ci ay waaraate wala tajaxal bul def maa lay ànd ak yàlla ilahan yàlla akara jeneen soo ko defee rek fattul xaa sabab sos def na sànni la fi fii ma ci safara maluuman nga nekk di ku ñu yedd madhuuran nga nekk di ku ñu dàq wala séer mën de yàlla léegi nag afa asfaakum ndax dafa tàllal leen yéen dafa leen a tànnal yéen waa màkka rabbukum borom seen bil ban ne ci doom yu góor wa taxasa moom mu jàpp wa taxasa mu jagoo mi ngeen malaayka kay malaayka yi inaasan ay jigéen mu jël ji doom malaaka ya ni doom jigéen comme li ngeen wax yéen yéen a bon innakum naka yéen la taqul da ngeen wax xawlan wax aziman ju màgg ñu leen dugal safara wala qad sarafna walaay sa dëgg-dëgg biral nañu fi haada quran ci alquran ci ci ay misaal ci ay tëkku ci ay dëxal li yazakkaroo ngir nañ waaru waaye wa maa yasiduhum dolliwul leen illaa nufuran lu dul foñ rek walis dëgg xul wax leen ne law kaana bu nekkoon maa woo ànd ak yàlla alihatun ay yàlla kama yaqulun comme nañ ko waxee isan lul bu doon xamoon lab taxaw kon dana sàkku ilaa zil arshi jëm ci borom a mi sabilan yoon wallahi jeneen yàlla bu fi newoon ju wuuteeg mile kon jeneen yàlla gi dana kuré temps morom ma ndax fat foo fekk tey buur bu fi nekk ak ku koy opposé ñu ngay ko di taawante ci yu ne kon yàlla nag bu fi nekkee ba léegi te kenn ko di taawut ko day tekki ne moom rek moo fi nekk moo tax mu ne subhaanahu tudd na ma sellam wa taala jomb na amma yaquluna loo xam danañu wax ko xolu won ak jomb kabiran gu mag koo xam ne tu sabiw dana sabbal la ñeel ko asamawaatu juróom-ñaari asamaan asab'u yooyu juróom-ñaar wala ardu ak suuf juróom-ñaar yi wa man fiihinna ak ñu nekk seen biir yëpp ñu ngi sàbbaal yàlla wa in min shay'in amul lenn lëf ci mbindeef yi illaa yusabbihu lu dul ba dama sàbbaal bi hamdihi mbir muy làmboo sant boromam walaakin li fi nekk laa tafqahuuna yéen déggu leen tasbihum seen ak sàbbaal innahu naka moom yàlla kaana nekk na xaliman di ku lewet gafuuran di jéggalaa koon wa idaa qara'ta boo jàngee quraana al quraan jaxal naa danañu def baynaka sa diggante wa bayna lazina ak diggante ña nga xam ne ñoom gëmuñu xal laayum duñ gëm laaxira ci àllaaxira hijaaban kiiraay mastuuran bay aji suturaal boo xam ne dafay nekk rido baaraas bu doo sa digganteeg ñoom wa jaxal def nañu alaa qulubi seen xol ya akinatan ak muuraay an yafqahuhu wala su ñu dégg alquran wa fi asaanihim ak yi nekk la seen nopp ya waqaran ak diis wa ida zakarta boo tuddee rabbaka borom sa fil quran ci alquran wax doo mbir muy wéet daal walaw ñu dëddu ah maanaam nufuran di way foñ ala adbaarihim seen gannaaw ya bëgguñ koo dégg ndax nu ñun yàlla ala mu xam nañ bi ma yastami'una dañuy sàkkoo dégglu loolu lan la mu ne wax yastami'una waxtu ñu dégglu ilayka jëm ci yow wa is mu ba nga xam ne ñoom naj waa woy diyaale lañ di waxtaan mu badal ca is yaqulu bay wax zalimuna way tooña te seen diyaale ga ne in tattabi'una déet ngeen i topp illa rajula dul góor masuuran koo xam ne dañ koo njabar kalam neexut loolu la ñuy wax yonent bi yàlla ne unsur xoolal kay fa dara boo naka lañ saddee lakka ñaan la am saala léeb yi naan bu xaabalaak waykat la fa dalloo sànko nañ falaa yastati'uuna xattantit sabilan soobu yoonu njub wa qaaloo wax nañ di weddi dekki na isa ku naa ndax buñ mujjee isa man di yax waru faatan nekk yu fënax a isa ay naa ndax ñun la mabuusuna ñuy dekki lañ xalqan ci bind jëddeen gu bees takk yàlla ne wax leen ne kuunu nekk leen hijaaratan di doj aw hadidan mbaa ngeen i weñ gu ñuul aw xalqan wala ngeen i bind mi maa yi mbindeef moo xam ne maa ci la nga xam ne yàqbur na na màgg su fii fii su seen dënn yi nekk leen li gën a rëy bu ne boo di asamaan fa sa yaqul danañu wax ne man duna ana kan moo ñuy dekkilaat xul wax leen ne la si nga xam ne fatara ko moo leen bindoon awala martin ci njëlbeenu yoon tontu gu fasaala waaye boo ko waxee fasa yun xiduna xal si nañoo yëngal maanaam ruu ilayka jëm ci yow ruusum seen bopp ya wa yaquluna danañ wax ngi rek yëji ne mataahuwa kañ lay doon moon dekk gi xul wax leen ne xasa an yakuna amaan na mu nekk xariban di lu jege yow ma yad'ukum fàttalikul bis boobu dana xoo leen ngeen bàyyi ko seen bàmmeel yi fa tastajibuuna da ngeen xuy ji xooteen ba bàyyi ko ci bàmmeel bi hamdihi ci ndigali yàlla yi su ko defee wa tazunnuuna da ngeen njort ne in labistum déet ngeen i sax illaa qallan lu dul lu néew ci àdduna waqul waxal li di ngeen sama jaam yi nga xam ne dañoo gëm yaqooloo nañ wax xéeféer yi ne lëtii nañ wax xéeféer yi maanaam kàddu goo xam ne lëtii mooy nga xam ne xëye moom asanu moo gën a rafet ina seytaane naka seytaane yan saxu dana yàq bay na noonu seen diggante ina seytaane naka seytaane kaana naka jekk xaddu woon noonu la mu binan bay aji biral ak nooneel lil insaani ñeel doomu aadama su ko defee rabbukum borom seen an la mu xam na bikum ci yéen in yasha bu ko neexee yarhamkum mu yërëm leen ci tuub wa in yasha bu ko soobee yu'azibkum mooy maanaam mu mbugal leen dugal leen safara kenn mënu ca dara wa maa arsalnaaka yónni wuñ la wakiilan ngay aji wattu xaleem ci ñoom wa rabbuka borom sa alamu xam na man fi samaawaati nekk juróom-ñaari asamaan wal ardi ak mboolem nekk juróom-ñaari suuf wa laqad faddal naa wallaahi gënal na ñun yàlla baat la bii nag lenn ci yonantu yi xalaa baax nañ ci lenn xam na ci ñoo xam ne lañ xam seen morom xamut ko yonantu yàlla Moussa yàlla gënal na ko ci waxeeg moom Ibrahima ci xaritoo yonantu bi yàlla jox ko Isra ak mihraaj te kenn amu ko waa tey naa jox nañ daawuda daawuda sabuuran téere bu ngi tuddee sabuur xul wax leen ni uddoo na ngeen na ngeen woo la seen ñi nga xam ne saantum ndax ngeen ne ñoom ay yàlla lañ min dooni walis yàlla moo xam malaaka yi la moo xam isa wala usayru falaa yamlikuuna moom tiñ kas fa duri hu ñig lor xan ko walis leen wala taxwilan du caakeen ak wëlbati ulaayka yooyu gaay la si ne mooy ñi nga xam ne yaddoon dañ jaamu leen ñuy ay yàlla ñoom de yebbu taxu na ña ngay sàkku ilaa rabbihim jëm seen borom alwasilata ak jege ñu ngeen jàpp ne yàlla lañ sax ña ngay topp yàlla di ko bëgg a jege wa roog Isa ñëpp yàlla rek lañ fonk di ko topp ayuhum ku mu ci ñoom a ngay seet aqrabu moo gën a jege ci yàlla wa yarjuna ña ngay yaakaar rahmatoo yërmandeem wa yaqaafuna ña ngay ragal xasaabahu mbugalam yàlla inna asaaba rabbika naka mbugalam sa borom kaana nekk na mahzuran di lu ñu tere maanaam walis ñooñu nga xam ne gëm nañ yàlla waaye nag nekk na lu ñu lëwal gàcc ko ci ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla kon gis nga aayaat yooyu yëpp ma la